الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خدمه سلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمم، seen mbokkum ما eh, ma leen di yëgal amal gu mu amal benn naam Espagne la nekk ñu koy wax moor Gueye ñu koy wax Mor Gueye rek maam Thierno Gueye xale yi xam xam nañ ko Mbour moom laa def euh, mu nekk coordinateur international bu alxadimiya euh, cinq continent yëpp ma bëgg nag yëpp koo xam ne alxadimiya ñor na la nga am nga jokkoog moom moom it mu am say coordonnées ndax liggéey bi ñu bëgg liggéey ci alxadimiya wax dëgg yàlla bu ñu ko defee euh, njabootu Ceerno gi yëpp à travers le monde lañ koy defaaleel xalifa bi lañ koy defaaleel waa Daaru Muxti lañ koy defaaleel ku bokk ci Ceerno ku fa mën a nekk ci àdduna bi lañ koy defaaleel dañoo bëgg organisation boo xamante ni bii day ak jamono gën a tege ci yoon ànd ak transparence loolu nag dama koy junj rek alxamise la koy insha allah ci la ko ora fram faram fàccee alxamis ci guddi ay morgue lu tuddu te xale bu am passif nek Espagne mom la def mu nek coordinateur international bo xamanteni bi ci al khadimia yi nga xamanteni bi señ di feñal na ci limu ci feñal la koy defé di xamal itam xale yi nga xamanteni bi ñom seen métier dafa matti ci walu sport wala walu art wala yi demee noonu wala wàllu culture donc itam xale bii de Ahmada te bokk ci sama njaboot waaw moom laa leen di booleel euh, dina am itam yu ko màndargal incha allah loolu nag incha allah ba alxamis ci guddi fii ci si ci laa koy gën a leeral dina ko fi fekk Mor moom bu ko fi fekkul it Ahmada moom dina ko fekkee incha allah ak ñenn ci ñim ma bokkal bu ko defee ma gën koo leeral. waaw Ahmada nag li nga xamante ne bii moom moom laa koy liggéeyloo am na lu mu war a àndal lu mu war a àndal loo xamante ne bii yu yéeme lay doon ci ñi nga xam ne seen métier daa féete daa màcc ci yooyu ñooñu dina am incha allah lu ma ko baaxee loo xamante ne bii waaw leen di mën a jàppale bu baax a baax incha allah loolu daal laa ne woon faaw ma leeral ko ci guddik àllarba gi. يوم الأربعاء كتبك وخن بعل إله له أن يبلا إقالة ما بينه لي قبله آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته